mbokk seen xarit Mouhamadul Busayri ñëwaat nañu ci beneen jotaay ci suñu jotaay tafsir suurati Maryam ñi ngi yemoon ci aayeb juróom-benn fukkeel ak juróom-ñaar kon nag ñu war a commencé tàmbali bi iznillahi taala ci aayeb juróom-benn fukk ak euh, juróom-ñett su yàlla di waxe fa wa rabbika la naxshurannahum walshayatina summa la nuxdirannahum xawla jahannama jisiya li ko jiitu mooy ko maanaam bi foog ñu wax li ko jiitu euh, ndaxte mooy euh, maanaam yàlla dafay to ci tontu yéeféer bi nga xam ni moom moo wax a ida ma mittu la sawfa uxraju xayyan ki nga xam ne def ni a iza ma mittu la sawfa uxraju xayyan est-ce que maanaam kooku am nañu ne ubay ibn xalaf euh, yàlla ma ngi koy leeral euh, ca surat euh, yaasin dani awala yadkuru l insanu anna xalaqnahu min qablu min nutfatin fa ida huwa xasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu qaala man yuxyi l izama wa hiya ramim Euh, maanaam même même waa ji la waaw est bu ma génnee àddina dina maanaam di dinañ ma dekkalaat maanaam est que dekkal dana amaat moom loolu lay laaj euh, yàlla tontu ko daani waaw xanaa doomu aadama bi moom moom yëgul ni xanaa ci moom du fàtt fàtt xanaa du fàttaliku ni man ba ma koy bind booba du woon dara te te bind boobu bu amoon luy jafe kay loolu moo gën a jafe te loolu lu lu lu lu jomb la ci yàlla subhanahu wa maam di am lu muy jafe ci moom yàlla lépp a yomb ci moom léegi nag euh, yàlla di tontu euh, euh, waa maanaam daal di ko dël di ko di ko mënaat di ko dik mbugal mu mett mam koy xaare yàlla fa wa rabbika loo xam yàlla daf ko daf koo giñe maanaam loo xam ne yàlla daf koo giñ daf cee giñ fa wa rabbika subhaanallah maanaam yàlla bu waxoon rek la ah, lanaxsurannahum wala mu wax sa sa axsuruhum yowma alqiyama wala mu ni sa naxsuruhum bu ñu woon sanaxsuruhum rek loolu rek wax ju dëggu la lool waaw léegi nag euh, loo xam ci bu fekkente ni yàlla da daf daf daf koo jiitale ak ngiñ daan ni fa wa rabbika maa ngi giñ ci sa borom te yàlla mooy giñ ci boppam yàlla moom mooy ci boppam euh, maa ngi giñ ci sa boroom ni yéeféer yooyu ak seeni seytaane ya nga xam ni ñoo leen dugal ci lu bon li di ànd ak ñoom ca yu bon yañuy def nga xam ni ñooñu ñoo leen jiite moo xam muy seytaane nit ñi wala seytaane jinne yi maa ngi giñ sa boroom ni la naxsurannahum dinañu leen fang dajale leen ñoom wa shayatina ak seytaane yi ñoom ak seeni seytaane yi dañ leen di dajale pang leen ci ab palaas fan palaas boobu mooy xawla jahannam maanaam li war jahannam foofu ñoom lañu leen di dajalee ci wetu jahannam rek la ko wër xawla jahannam foofa la ñuy sukk tu quu maanaam jisiyan ay quudan comme ni ko am na ñu ne jisiyan mooy ñu taxaw am na ñu ne jisi may riwaay riwaay bi ñu jël ci abdu abdullah ibni mas'ud mu ni jisiyan ñoom dañuy taxaw am na ñu ni jësiyan dañuy sukk ndaxte euh, jasa yajsu mooy maanaam jasa mooy sukk na waaye léeg-léeg nga dégg euh, ñu ñu waxe ko noonu ba pare jublu ci taxaw am na fu yàlla ñu wa tara kulla ummatin jaasiya wa tara kulla ummatin jaasiya kon am na ñu ko firee ñu taxaw am na ñu ko firee sukk en tout daal yàlla def leen di dajale ca wetu jahannam li wër jahannam yàlla def leen fay dajale am na ñu wax ni li tax maanaam yàlla tudd sukk sukk googu eh, yàlla tudd sukk jësiyan mooy tar-taru njàqare yay am ca bis boobu ak rëngi-rëngi ga fay am maanaam ak métit yaag euh, métitu mbir ya fay am ak yéeféeri seen demin demi demin yu bon demin yu bon safaral ba leen di xaaral ak mbugal ma leen di xaar loolu lépp dañuy tiit ba sukk moo tax yàlla ni summa ran nuxbirannahum de dinañu leen teewal xawla jahannam ci li wër safaras jahannam yàlla nañ ci yàlla musal jësiyen ñuy woy sukk am na ñu ko firee ñu taxaw waaye euh, maanaam ñaari wax yooyu euh, nekkul luy dàqante summa lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiyan summa topp nag lananzi'anna xalfet maanaam dinañu dindi laam bi la laamu tawkid la dinañu dindi jële min kulli shi'atin ci kuréel gu ci xeet wu ci yéeféer yi nga xam ne ñooy mushrikoon yi yéeféer yi euh, ña nga xam ne ñoom ñoo ndaxte ak kéeféer moom benn benn benn yoon la rek ak kéeféer benn maanaam ku gëmul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku gëmul rek yow ab yéeféer ak foo ma mën a bokk moo tax xoola abu abdullah ibnu ubay xamalu xamum naafiq te te moom day day ànd ak julli ñi ci jàkka jàkk yépp wante naafiq la gëmu ko ak gëmu ci dara moo tax yàlla daañu alam tara ila alladina naafaqu yaquluuna li ixwanihim alladina kafaru min ahlil kitab xam nga naafiq yi ñoom bokkuñ ci ahlil kitab wante li ixwanihim lu tax parce que fi ndaxte seen pas-pas benn mooy ñàkk a gëm yenent bi ñàkk gëm yenent bi rek léegi la ca des nag mooy mooy ban ban kuréel nga ngay nekk wante ñàkk gëm yenent bi moom mooy ak kéeféer la ba pare kéeféer gi yëpp nag benn benn yoon la léegi nag kéeféer googu nag yéeféer yi xeet wu ci nekk mbooloo mu ci nekk ka gën a maanaam mbooloo mu ci nekk ka gën a taruk ñàkk gëm yàlla ka ci gën a taruk rëy rëylu ci yàlla kooke yàlla daf koy génne da koy da koy génne maanaam xeet wu nekk da génne ka gën a tar ci ci ci wàllu kéeféer mu indi ko noonee la yàlla def ba dajale ñëpp ci biir jahannam noone ashaddu ayuhum ashaddu ala arrahmani itiyan allahu akbar yàllañ ci yàlla mosal maanaam weddi yàlla amul lu gën a amul lu gën a bon loolu amul lu gën a nekk ak cànkute ak alkade amul lu gën a nekk yàq bi yàlla yenent bi ñëw indi alquran nga weddi ko maanaam ba pare nag deewee ci ña ci ñàkk gëm yenent bi la jëm fan la jëm topp ay nit ñoo xam ni nit ñu sànq la ay ñu bon moo tax yàlla daal ni xatta ida daaraku fiha jamian maanaam kuréel bu nekk yàlla yàlla yàlla ka ca gën bon rek noonee la ko yàlla def ba ñëpp dugg ba ba bu ko defee na ñoom ñu daje fa ñoom ñëpp nag xatta ida daaraku fiha jamian comme ni ko yàlla waxe sóot la araf bu ko defee ñi mujjee ñëw di di di di di xuloog ña nga xam ni ñoom ñoo jëkk ñëw wa qaalat uxraahum li ulaahum rabbana haulaa alladina adalluuna faatihim azaban di'fan min annaar ndeysaan ña mujjee ñëw di tawat ak di di xuloog ña ña jëkk ñëw daal ni yow suñu borom ñii ñoo ñu réeral boo ñu mbugalee benn ñoom mbugal leen fukk mbugal mbugal leen double bi ndax ñoo ñu réeral yàlla ni leen képp képp ci yéen kenn ku ci nekk dama lay dama lay ñëpp yéen yéen maanaam ñi réeral ak kenn ku ci nekk dañ la fulal mbugal li kullin qaala li kullin diif walakin laa taalamun léegi ñu jiitu tontu wa qaalat ulaahum li uxraahum fa ma lakum alayna min fadl maanaam ñu jiitu ñu daal di amul daan daan wax wax ña ñëw seen gannaaw ni leen maanaam ñu mujj ña ñu jiitu yi ñoo leen di wax ni leen yéen amul benn ngëneel bu ngeen ñuy gëne mbugal mu ñu mu ñu def da def leen bu bu ñu toll kon gis nga moo tax am na yàlla am na fu mu koy leerale ci euh, suurat Saad xam bu ngeen gisee may tafsiré nii ndaxte tafsiru alquran manhaju ibnu kathir euh, manhaj la bu bu bu bu bu bu xeet wépp d'accord maanaam mooy dangay ngay tafsir alquran ci alquran da ngay tafsir maanaam da nga koy wax ci wolof wante wolof yëpp da ngay indi maanaam alquran bi da ngay indi benn aay buy leeral aay bi waaye lépp nga tafsirandoo ko bu fekkente ni euh, maanaam gisoo ko ci nga nga nga indi waxu waxu yonent bi bi bi muy wax ci xadis ci aay bi boo gisul nga ñëw ci waxu saxaaba yi comme ni ko Ibnu Kasiir defee rek léegi ci suuratu Saad yàlla ma naan wa aaxaru min shaklihi azwaj haada fawjun muqtaximun maakum maanaam ñu mujj ña dañ leen dox ñii ab mbooloo lañ ñoo xam ne dañuy dugg sànjaafu dugg biir jahannam ànd ak yéen muqtaximun maakum ñoom ñu laa marhaban bihim ñoom kay eh, amuñu benn marxab ci ñun amuñu lu leen di yaatal innahum saalu naar ñoom it ñu tontu leen daañu bal qaalu bal antum laa marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana yéen yéen añu kéeféer gi yéen añu ko indil yéen añu réeral fa bisa alqaraar wa qaalu rabbana man qaddama lana hada fa zidhu azaban dicfan fi nnaar wa qaalu ñu ni maa lana laa nara rijalan kunna nacudduhum min al ashrar attaxadnahum sixriyan am zaagat anhum al absar yàlla daani inna dalika la xaqun taxaasumu ahli nnaar yàlla nañ ci yàlla musal kon gis nga summa la nuxbiranna xawla jahannama jisiyan summa la nanzianna min kulli shiatin ayuhum ashaddu ala arrahmani atiyan yàlla nee na summa la naxnu aclamu billadina hum awlaa biha siliyan war warsh def naan suliyan fee tamit jusiyan summa la naxnu aclam yàlla nee na ñun ñoo gën a xam maanaam man nax naxnu bu ko yàlla dee wax jubluwu ci mbooloo de déedéet subhaanallahi wa taala an dalik yàlla lim ci jublu mooy màggal yàlla day màggal boppam daani nahnu summa la nahnu aalamu ñun ñoo gën a xam billadina ci ña nga xam ne hum awlaa biha ñi nga xam ne ñoo gën a yey ci safara si si liggéen ak lakk ñi gën a ñi nga xam ne ñoom laay gën a jiital ñoom laay jiital ñoo gën a yeey ma jiital leen ñoo ñu xam naa leen ñi nga xam ne ñoo gën a yeey ma ya damaa wax jiital ngeen baal ma déedéet euh, ñi nga xam ni ñoo gën a yey ak lakk safara fi ñoom yàlla nee xam naa leen te nag ñooñu du ñenn ñu dul euh, ci yéeféer yu bon yi nga xam ni bokkaale yu bon yi moo tax yàlla ne summa la nahnu aalamu ñoo gën a xam ñi nga xam ni ñoom ñoo gën a yeyoo ak lakk safara si awla biha siliyan siliyan tamyiz la ci naxu boo ko doon li ci naxu siliyan bi dafa ñëw nekk tamyiz ndaxte da da tamyiz dafay ràññee dafay ràññee li muy maanaam boo nee awlaa biha yàlla maanam dafa ni ñun ñoo gën a xam ñi xam ñoo gën a ñoo gën a yeyoo yeyoo ci lan ci lakk wala ci garde safara de moo tax mu yeyoo ko daan mu leeral ko daan ni siliyan ak lakk wa in wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiyan wa in minkum illa waariduha wa in in ji nekk ci wa in minkum moom la ñuy wax in an naafiya in in naafiya maanaam in gi daf day dàq amul kenn nit ci yéen illa waariduha lu dul dafay dugg biir safara soos ñépp moo xam muy jullit moo xam muy ña muy yéeféer ñéppay dugg ñéppay dugg kenn du des léegi nag duggub jullit ñi bokkul ak duggub yéeféer yi yéeféer ñoom duggub mbugal lañuy ñuy moo tax euh, ñëw na ci benn xadis boo xam ne garib xadis bi maanaam am na as euh, maanaam am na ñu ko jëm ndaxte xadis dafa am xaraaba tuuti te yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa ne laa yabqa euh, barrun wala fajir illa daxalaha fa takunu ala almumini bardan wa salaaman kama kaanat ala ibrahima xatta inna linnaari dajijan min bardihim summa yunajji llahu alladina ittaqaw ويذر الظالمين fiha jithiya xadis bi maanaam mooy amul kenn kuy des du ku ku baax wala ku bon lu dul ni dafay dugg biir safara bu dee ci jullit ñoom ci jullit bi safara day sedd ci ñoom comme na mu sedde woon ci Ibrahim ba sax da dégg ay ay rëng-rëng ci ci ci safara seen seen ci seen maanaam seddaay Euh, topp nag yàlla daal di musal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ragaloon yàlla bàyyi fa tooñkat yi yéeféer yi nga xam ni ñoo daan weddi yàlla mu bàyyi leen fa ñu euh, way sukk foofu ca euh, jahannam waaw léegi wa in minkum illa waariduha am na ñoo xam ne nañ siraat lañ ci jublu maanaam jéggi siraat siraat lañ jublu ci waariduha amul kenn nit lu dul ni dafay jégg siraat wante ñaar yëpp mën naa nekk ñaar yëpp mën naa ndaxte duggug jullit ñi ca barab booba nekkul duggug mbugal déedéet am na ñun dañuy dugg ba xool bu fekkoon te ni ñàkk nañoo ñàkk nañoo jaamu yàlla fiñ nanoo dem xam nga jële fa jële fa nga dugg àjjana day tax sax àjjana di di àjjana ji di gën a neex ci yow ndax fa nga jóge bu ma lay may ndox mu sedd ma maye la ko ci jamono ji nga yëge ak tàngoor loole da ciy baax da ciy neex ci lay gën a neexe ci la ndox mi di gën a neexe ala kulli xaal euh, duñ ci yàgg lool ci wàllu Euh, ndax jahannama la wala siraat la benn bu ci nekk jullit ñi moom euh, ñu yàlla di musal ci musal la ci yàlla dana dana leen musal ci moo xam ci siraat la moo xam ci euh, moo xam ci safara la ndeysaan Abdullah ibnu Rawaha mas naa jékk ba commencé jooy Euh, soxnaam tamit commencé di jooy mu ni soxnaam looy jooy mu ni ko damaa gis ngay jooy rek man naa jooy après ma wax ni ko damay dama fàttali ko yàlla lim ni wa in minkum illa waariduha isam amul kenn ci yéen lu dul dana ñëw safara soo dana ci dugg kaana ala rabbika xatman maqdiyan kaana loolu de dafa nekk xatman lu yàlla waru warlul maanaam yàlla lu mu warlul boppam maqdiyan lu ñu dogal maanaam lu dul maanaam loola daal euh, sa dafa dafa nekk lu sa boroom waral ci boppam maanaam yàlla amul lu ko war wante lu muy warlul boppam la loola nag di lu ñu dogal yàllaa ko yàllaa dogal lool mooy ni ñëpp moo xam muy jëlit moo xam muy ab yéeféer moom dana dugg foofu yàlla nee na summa nu najji summa summa nu najji alladina taxaw summa topp nag nu najji ñu euh, nag taxaw ña nga xam ñoo ñoo ko ragal xam moo tax gis nga ragal yàlla amul lu ko gën a rëy ragal yàlla amul lu ko gën a rëy yàlla yàlla may ak ragal ragal ko yàlla na yàlla may ragal ko ndaxte ndaxte bu fekkente ni nit ki ragalu yàlla ragalu dara lu ko neex ñu koy def waaw léegi yow bu bu duggee ca biir yàlla dafa ne summa summa summa nunajji lazina taqu waaw léegi yow bokk ko woon ci alladina taqu kon yow ñay mucc moom euh, yow yow mi ñàkk a ragal yàlla doo ci bokk moo tax nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bis bu nekk rek euh, suñu ragal yàlla nay gën a yokk bu fekkeen bu fekkente ni bëgg nañoo mucc ëllëg ca bu fekkente ni dugg nañ euh, ñi nga xam ne ñoom nee nañ loolu euh, maanaam siraat la siraat bu ñuy teg loolu dañ koo firee aaya bi su mel ñoom Abdurazaq ak euh, comme riwaay bi mu jëlee ci Qatada bi mu jëlee ci euh, Maamar mu jëlee ko ci Qatada maanaam mooy mooy mooy mooy mooy fa ñuy jaar te mooy mooy mooy mooy siraat Abdurahman ibn Zayd ibn Aslam ñoom ñëpp ay borom xam-xam la ñuy mag a mag a mag ay ay ay kibaaru taabi yoo xam ne macha allah ñoom ñoomit it wax mooy pont ba nga xam mooy seraat rek ba tey nga xam ni euh, yéeféer yi moom dañuy surux dugg julli ci dem wante wante euh, na seen xel dal euh, jullit bi am na riwaay buy ñëw boo xam ne jullit bi day jéeg ba yàgg di laajte waaw ñun yàlla dafa ne dafa wa in minkum illaa waariduha dugg dugguñ ci ba ñu ne ko yow ci ba génn ci yëgoo ko sax maanaam kii ne àjjana bu demee ba àjjana ñu ko waaw ana la yàlla doo wax ni yéen ñëpp da ngeen dugg biir am safara yéen ñëpp da ci dugg ñu ni euh, ñu ne ko dugg nga ci ba génn yëgoo ko Euh, kon euh, noonu lay neexee ci jullit bi bi nga xam ni yàlla dafa dogal ci moom mu mu war a dem nar a dem àjjana yàlla nañ ko yàlla defal ñun yëpp yàlla subhanahu wa loolu ko yomb la waaye nag ah nañuy nañuy dugg jël asbaab yi nga xam ne mooy tax mooy tax mucc de bu dul looloo rek moom moom nekk naan yàlla naa dem yàlla naa dem àjjana yàlla naa dem àjjana te lii tax nga dem àjjana defoo ci dara yonent bi de ba mu ko ko waaw yonent ko la ñaan ma loo bëgg loo bëgg ma defal la ko mu ne ko man de li ma bëgg mooy nekk ak yow ci àjjana rek yonent bi ne ko ah kon nag nag nag nag ma dimbalee loolu nag ma ci dimbalee bari looy julli lool ainni ala nafsik bi kasrati sujud nag ma nag ma dim loo maanaam loolu day pour nga am ko nag may dimbale di di sujjóot lu bari maanaam mooy mooy di julli julli yu baree baree bari kon nag même bu dul bu koor gi jeexee naafile yi nay bari lool mbokk yi maa ngi koy digal sam bopp du leen ko digal naafile naafile guddi bu leen ko bàyyi bu fekkee bëgg bëgg bëgg mucc ëllëg ca safara buñ buñ ca bëggee mucc ëllëg ah dem àjjana direct naafila lay nay bari lool lool lool lool ndax bu ëllëgee ëllëg boobu dana metti ëllëg boobu dana metti lool sax lool lool lool maanaam bu yàlla tegee siraat pont boobu ñu war a jaar dana met dana dana dana bis bu bis lay doon moo tax na xadis ante bi ni euh, azaaluuna wa zaalaat ñi nga xam ñooy tarxisu azaaluuna wa zaalaat yowma idin kathir ndeysaan waqad axaata bil jisri yowma idin simtaani min al malaika duaauhum mooy yaa allah sallim yaa allah sallim sallim sallim loolu rek mooy seen ñaan maanaam yonent bi nee na ñiy tarxiis ëllëg daañ bàyyi de ñiy tarxiis ñu góor yi ak ñiy tarxiis ñu jigéen ñi ëllëg daan bari lool léegi nag euh, pont boobu dana am ñaari rangé rangu malaayika yoo xam ni ñoom ñoo koy wër di ñaan yàlla rek yàlla yàlla yàlla nga musal yàlla yàlla nga musal yàlla yàlla nga jàmmal yàlla yàlla nga jàmmal yàlla yàlla nga jàmmal yàlla yàlla jàmmal bu boobaa allahuma inna nasaluka aljannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal wa naudu bika min annaari wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal bi rahmatika ya arhamar rahimin summa nunajji alladina taqaw topp nag ñu musal ña nga xam ni ñoo ragal wa nazaru bàyyi fa nag alzaalimina yéeféer yi tooñkat yi ñu bon ñi bokkaale yi bokkaalekat yi bàyyi leen fiiha ca jahannama googe jëfiyan ñuy way sukku seen wóom yëf ndax lan ndax mbugal mu metti yal nañ musal wa ida tutla alayhim ayatuna bayinatin qaala alladina kafaru lilladina amanu ayu lfariqayni xayrun maqaaman wa axsanu nadiyan waaw façon wax yi de façon wax yi de moom yéeféeru màkka dong ñoo koy mën a wax de an ñu mel ne ñoom ci yéeféer yi nga xam ne rëy rëylu kat yi wa ida tutla alayhim bu ñu jàngee ci ñoom alquran aayaatuna suñu suñu kéemtaani suñu aayaat yi ñëwoon naa aayaat dafa dafa firi dafa am ayat sharciya ak ayat kawniya ayat sharciya mooy alquran mooy alquran ji ayat kawniya mooy yàlla kéemtaanam yi ci àddina bi kéemtaanam yi ngi asamaan si suuf si géej gi montagne yi ngelaw li garab yi yooyu yëpp ak xew-xew yi am am yi taw tàngoor yi ñuy tàng sedd yi sedd guddi gi bëccëg gi jant bi weer wi biddi wi gis nga loolu lépp ay ayat kawniya la ayat shar'iyya xam nga comme naan ñi ngi naan tutla rek comme alquran bu dee jàng ñoom alquran yi nga xam bayyinaat yi ay xaala kawniha ayat yi nga xam ne dañuy nekk aaya ay ayat quraniya yoo xam ni dañuy seen ay lay dafay leer nañ seen leer nañ li ci yàlla leeral nekkul lu lënt alquran lu lënt amu ci lépp leer nañ loolu nag buñ ko jàngalee yéeféeri qaala alladina kafaru yéeféeri qaala wax alladina ñi nga xam kafaru dañoo weddi ñoom dañuy wax ak lilladina amanu ñi nga xam ni dañoo gëm yéeféer yi dañuy wax ak ñi nga xam ñoo gëm ni waaw yéen ñun ak yéen ñun ak yéen yéen bu ngeen jógee di làqatu ci ay ci ci daarul alxam ibnu abil alxam ak di làqatu ci gannaaw montagne yeeg ñun na xoola ñu ngi nii ci suñ penc yi ñu ngi suñ penc di wanewu di solu di maanaam di di di am ñu am image bu bu bu rafet ah koo ci gis yaa ngi ci jàmm ñu ngi toog di waxtaan wante yéen di làqato di beru ayul fariqay bi kan ci ñaari kuréel yi xayrun maqaaman moo gën ay wàccuwaayu kër fi toog fi nekk wa axsanu nadiyan maanaam ña kan ci ñaari kuréel kuréel yi ñoo gën a rafet ay pénc ñoo gën a rafet pénc ñoo gën a rafet ay wàccuwaay ay kër ay tooguwaay ay majalis ah ay ngàngunaay fi ñuy toog ñun ak yéefe ñoom ñoom ñëpp dañuy dem di làqatu ji euh, di dànkalikoo fële ca daar euh, arqam ibn abil arqam kon ñun ak ñoom kër ñun ñoo gën yàlla tontu leen daal di maanaam yéen ad seen bët ci àddina bi ngeen ko teg diw am na diw amul xam loolu nag ba léegi li li ci métti mooy ba léegi jullit ñi jullit ñi sax ñoom dañu am loolu maanaam kii laay àndal kii kii mooy dawal oto bi oto gis gisoo oto ci diw oto bi mu yor léegi wala diw gisoo këram bi mu yor léegi diw kër yu rafet la am oto yu rafet lay dawal boo gisee tamit gis nga place ñi muy àndal fa muy toog subhaanallah dooni mukk diw gis naa ko ci jàkka ja dooni diw fekk gis na dégg naa ko mu jàng alquran dooni diw kat day défendre l'islam waaye yow diw oto bu rafet kër gu rafet yére bu rafet montre bu rafet téléphone bu rafet daal yu rafet yooyu donc ak di ànd ak ay caaxaankat ànd ak ay maanaam loolu euh, du jëfu jullit yéeféeri ñoo ko doon wax ayul fariqayni xayru wa axsanu nadiyan yàlla tontu leen ni wakam ahlakna wakam aka bari lool yéen xanaa xamu leen maanaam Firawna jaaroon na fi moo leen ëppale woon fuuf Qaaruun jaaroon na fi Qaaruun moo ëppale woon sax Firawna ah ana Qaaruun ana Firawna moo tax yàlla ni wa Qaaruuna wa Firawna wa Haamaan wa laqad jaa'ahum Muusaa bil bayyinaati fastakbaru fil ardi wa maa kaanu saabiqiin ñooñu anam fa kullan axasna bi dambihi kon ni waa màkk yi nga xam ni waa màkk yéen amu leen soldaar amu leen amu leen doole makk leen dong leen ngeen am leen ngeen am xibral euh, ci expérience lool lool lool mooy lan mooy dem Sham di jënd marchandise ak di jaay loolu moom ngeen am xam-xam lool amaa xeex nag comme bu njëkk yu njëkk yi amuleen ci ay ngànnaay seen ngànnaay bariwuti ña nga xam ne ñoo leen ëppoon ëpp doole ëpp leen ngànnaay ñooñu anañu loolu ñooñu li ci alag li ma ci alag aka bari wa kam bari na kam bii lañ wax kam xabariya dafa am kam xabariya ak kam istifhamiya kam euh, bu fekkente ni dafa ñëwee ci siyaax bi maanaam kam bu ci xibaar toppee rek bu ci ab xibaar toppee rek kooku kam xabar ya bu ci xabar toppee xam nga ahlak naa yàlla xibaar bu ñuy xibaar la yàlla xibaar bu ñuy xibaar la wa kam bari na lool ahlak naa maanaam ñu alak qablahum la leen jiitu la jiitu yéefee yi maanaam bari na lool lu ñu alage min qarnin maanaam ci ay euh, euh, xeet yoo xam ni ñoom xeet yoo yi façon nit ñooñu façon xeet googa ak alal ya ñu amoon nag seen façon dund seen tool ya ñu amoon nag seen pale xam nga pale moom am euh, Quraysh déggoo fa palais Quraysh déggoo fa palais déggoo pare doo ko dégg gisoo ko pare gisoo ko euh, màkk gisoo ko madina kon ñoom euh, gëm yàlla rek moo leen war borom pale yi ndegam ñooñu laa alak waxumaan ñii kon ñi euh, lan lañuy ñuy damoo jullit ñi ci lan ci lan bu fekkente ni ñu njëkk ña ñoo leen ëppoon xaalis ëppoon leen ëppoon leen doole ëppoon leen ay soldaar ëppoon leen ay ngànnaay ëppoon leen ay ay moyen lu ne amoon ay palais amoon ay tool lu ne am nañ ko ànd ak loolu lépp nag yàlla ak alak leen ci ak ngoon wala ci ak suba ñooñu alak naa leen ñoom yëpp te ñooñu hum ñoom de axsanu ñoo gën fuuf gën a rafet gën a jekkle gën a rafetle gën a développé fuuf gën fuuf nag asaasan ay bu dee ay statique bu dee ay meuble lépp ñoo gëlle wari yan ak ay image ñoo gën a rafet ay image ñoo gën a rafet lu ne ñoo gën a rafet ay décoration lu ne ñoo gën a rafet la boo demee ci buur yi arab yi ñoom dañ daan jëm ci euh, buur yi di fa di fa ñu leen di jox xaalis ñu ñëw ku ci mel ne mu xaw xis buñ buñ afee ci qissatu euh, al mughiratu bnu shuba ci dégg arab yi ñoom ni ñu daan dem di soxlaal di soxlaal romain yi ak perse yi ñu leen daan jox ay alal ñooñu romain ak perse yooyu seeni maam ñeleen te ña ñu doon ne seeni nguur gi ñoom ñëpp yàlla seen alal ñu si bari ak ñeneen ñu bari bari bari hum ahsanu asaasan wa riyan kon foofu lañ koy yemale euh, comme dañ ciy teg bonus dañuy yemale dañ koy yemale foofu te tafsir boo xam bis bu nekk bis bu nekk la jërul guddal euh, ba pare tamit Euh, damay damay ragal euh, yokkat ci ñuy déglu ndigaale ak ndigal hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh